asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 5 septembre 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la ñuy xëyee yëglikaay bi nag mu mel ni waxtaan mu doxoon diggante ak Balla Gaye numéro 2 démb moom la xëy continuer Balla nag tey bi mu xëyaatee ñëw na ci lu ci wàllu wér-gu-yaramam ginnaaw ba mu bëri ak Yékini ba pare mbirum dopaas ba ñu ko doon jiiñ ak diggante ak rakkam ji nga xam ne moo di Sa Thiès diggante mag Yékini nag nee na ba ma ko daane ba pare daal ca la jógee am ay jafe-jafe ci wàllum yaramam ci wér yaram mu mel ni ki nag Balla ñu ne ko ndax doon mbirum dopaas Balla ne déedéet loolu mosula am xanaa kay feebar moo dikkoon boole ceeg nag ma dem ba a mënatuma entraîner ndax feebar sama biir di gën a rëy maanaam daal ay jafe-jafe yu méttee métti am na ko ca boobu combat bu mu ca jógee ñu ne ko dopage bi bal ne loolu moom mësu koo xalaat ndax xale la mbirum dopewu moom nekkuloon sax ay mbiram xanaa kay nit ñoo doon wax rek seeni xalaat ak lu ñu yaakaar waaye loolu jàpp na ne bokkul ak li nga xam ne nii mooy lu am ñu ne ko léegi nag ki nga xam ne nii mooy sa rak di Sa Thiès mu Sa Thiès sama rak la te itam du mës a génn sama kër waaye li leer ba leer daal mooy lenn moom il faut nangu ko maanaam am kilifa gi moom du mën a ñàkk parce que nag lii ñuy def muy làmb ak lu ma mën a doon sax il faut nga nangu ñu yilif la te ngay dégloo nee na moom loolu daal mooy li nga xam ne nii moom la koy wax nee na combat ak Boy Niang la ko ci gën a indi problème xëy na jàpp na ne ñàkk déglu nee na moom Balla dem na ba benn wax sax bu ko wooyee sax ngir bëgg a waxtaan ak moom nangu ko nul koo déglu pour jël ay conseil am nee nag loolu dal ko moom moo tax daal ba nga xam ne nii daal fi mu nekk nii la mu koy digtal mooy mu gën a daal joxe boppam bu baax a baax a baax moom Balla Gaye numéro 2 loolu la xëy tey di ko wax ñu ne ko waa keneen koo xam ne nii sa rakk la di Ama Baldé ñu ne fi mu nekk nii moo tax mu am ay jafe-jafe ca biir Pikine Balla ni déere loolu amul ay waxi caaxaan dong la Ama ñu ko bëggoon Pikine ba tey tey lañ ko a fekk ne que nag ba des mooy rek li leer ba leer man Ama sama rakk la te itam loolu li ko indi mooy mbirum mbokk la ndax ku ne xam na ne bàyyam Fàllaay Balde su ma daan bëre day jóge këram ñëw sama kër yóbbu ma sax ba ca làmb ja di ma ñaanal ngir ma am ndam ne na kon maag Ama li ñu boole mbirum deret la waaye du sax mbirum bëre sama rakk la tey te ëllëg loolu lay continuer di ko doon moom mii Balla Gaye numéro 2 moo xëy daal ñëw ci yëglikaay bi di ci wax lu mel ni ki noonu ñu ne ko tafaatin moom ne sa combat ak moom mbirum gàllaaj dafa mel ni moo ci feeñoon bàll ni sénégalais yi ñoo ñuy àtte bu dee mbir moomu feeñ na ca ndax moom man tafaatin ku ma mas a jàkkaar lool dalay wan boppam daan la dem man itam bu ma ñëwee loolu dong laa ko tegal waaye leneen amu fa ñu ne ko seetloo nañ na tamit koo bëreel ba pare mu nekk sab xarit wala yu mel ni ki noonu bàlle ne waaw bu dee Tyson la moom sama idole la sama royukaay la sama lépp la tamit te ku koy faral di déglu laa ci ki nga xam ne ni nag moo di Ousmane Diop ak Baboy tamit samay mag lañu samay lépp lañ ñoom dañoo jàpp ne sport daal bu jeexee jeex na sport képp ci lay yem loolu moo tax xëy na mu jàpp ne ay nit nitam lañu këram gi nga xam ne ni tamit am na ko nee na 2005 la dugg ci làmb 2007 la am kër ga ci njàppanalu kii nga xam ne moo di Gaston Mbengue mi ko tëggoon daal ci jamono yooyu wala daan tëgg ay combat moo ko jàppale ci wàllum xel ak xalaat ak lu mu ko daan fay ba tabaxal ko kër ñu ne ko ndax am nga yeneen kër Balla moom loola nanguwu caa sori waaye daal tey xëy na leeral lu baree baree bari ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye loo ci mën a dégg itam la ca gën a daw yaram te mu wax ko démb moo doon tele ba nga xam ne ca jamono ya muy gën a nekk xale yaayam soxla woon na ko fekk ko ci entraînement woo ko ne ko damaa soxla tele Balla ne aw lu ma jënd tele ne keroog la ma def mooy mbappat maam ca fa nga xam ne mooy Stade Assane Diouf la ñu ma wax ne ab télé lañ fa teg ma tàggu samay kilifa muy bàyyi bàll mbu nga xam ne nii moom laa tudd sama bopp mu ne ma demal mu ne ba ma demee tamit télé ba fexe naa ba gagné ko final ak tafatin yóbbu télé ba drapeau ba sax ñoruma woon falaa ko mujj bàyyi télé ba daal laa gagné andil ko sama yaay mu mel ni ki nag loola moom la muy wane mooy nit ki lépp looy def rek fulla war nga ko caa boole waaye écrit ngi moom boo xam ne ñu ngi dox di jëm ci kaw ndànk-ndànk combat yëglikaay bi ne moom la ñu am am te 17 victoire ak 12 défaite mu mel ni ki nag fi mu nekk ni day ñu ngay xaw di dox di dem waaye ka nga xam ne nag mooy Fourouz moom fëm ba daa fay kabaj moom moom tàkkaleetul ndax nag ay défaite yoo xam ne nii fi mu nekk nii tegle na ko waaye keneen koo xam ne moom mu ngay wane boppam ca école booba moo di kii nga xam ne moo di Sunjata Sunjata moom mu ngay dox di wane boppam bu baax a baax am na fa ay xale yoo xam ne tamit def nañu carton plein muy ki nga xam ne mooy Salomon Salomon de ak ki nga xam ne mooy booy Waalo ñoom daal wane nañ seen bopp bu baax a baax a baax ñeneen ñoo xam ne moom seeni mbir saful suukar saful xorom mooy dubul Tyson ak Gorofil ñoom ku ci ne benn victoire nga am ak li nga xam ne moo di benn defet maanaam daal ñaari combat yi nga bëri dangaa gañe benn ñu gañe la benn ki nga xam ne nag mooy ki nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy diggante Bakaaw Kaolack Thiès mu mel ni ki foofu tamit écrit ba jaar na fa ci ay combat bëre ko waaye am nañ xale boo xam ne bu jara bàyyi xel la muy ki nga xam ne moo di Modou Feugueux la direct ci Feugueux la nekk ci ba moom nañ day nañ ko bàyyi xel ndax nag avenir la beneen avenir la ngi boo xam ne nii day bu yeboo tamit mu def ndànk muy aada faas ndax sunu lam ne na ginnaaw ba mu jógee ci defet ba nga xam ne amoon na ko daaw bi nga xam ne moom la ñu gën ci saison bii jeex ki nga xam ne moo di ondu lëfu mu ngi jëmaat ci beneen combat boo xam ne nii day bu nar a dansé la ci moom muy digganteem ak Bébé Bismi moo tax sunu lamb di xëy di ko dànkaaf keneen koo xam ne moom fu muy jaar ba yëkkati carrière am lay wër ca Leewtoo point net lañ ñu ko xamale mooy Moussa Ndoye bu yaraax ginnaaw lag la ko daloon ci li nga xam ne mooy saison bii jeex ci digganteem ak kii nga xam ne moo di Garga Mbossé waaye keneen koo xam ne ni moom fi mu nekk nii moom ci forme dëgg la ne sunu lamb xëy tey du ñu ko wax mooy Fallou Ndiaye Fallou daal fi mu nekk nii yëglikaay bi nee na day mu ngi ci forme bu baax a baax a baax ci ay préparation yu mel non non waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay ñëw muy làmbi simple ji jàppal lii nga xam ne nii nag moo di làmb simple ji day ñeenti chanteuse maanaam daal ñeenti waykat yu jigéen day wane nañ ci seen bopp ak juróom-ñetti tëggkat yoo xam ne tamit wane nañ ci seen bopp bu baax a baax ñeenti waykat yi nag dañ caa tànn ñaar mbayang lum moo nekk ca bopp ba moom moo gën a bëri lu ko nit ñi di soxla di ko wayloo waaye am na koo xam ne tamit mu ngi ko sës rek di ndey faatu aadama jëli moom tamit di wane boppam waaye tëggkat ya Maodo Faye moo nekk ca kanam mu mongom tamit ñëw nekk ca ñaareelu ba mu mel ni ki làmb simple ja tamit waaye leneen loo xam ne moom aw tiis la di kii nga xam ne moo di mbër mii di Moussa Dioum nga xam ne yëglikaay bi mu ngi ñuy xamale day daa am lu ko dal kii am ñasam boo xam ne day dafa am lu daanu wala bâtiment dal di koy faat moo tax yëglikaay bu xëy tey ñëw di ñu ko wax mu nga amee nag ca fi nga xam ne moo di parcelle unité kon Moussa Dioum ñu ngi koy jaal li nga xam ne moo di ñeesam boobu di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla leen te ko aljana di wax ne rek yàllaa ko waxoon fa kullu nafsin saayixatin mawtin fa kullu man aleya faaniya waaye leneen lu ñuy wax mooy ay division ni ko yëglikaay bi doon waxe sixième division tey armée nga fa Baye Mandione Cobra 2 Issa Pouye Lagros Mambala numéro un Naaru Sogas Ondoulefu ak Tonnerre loolu yëglikaay bi tey moom la xëyee tey yàgg maar TV ñu leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue naa la Ndeye Coumba Fall ah, di la ziar di ko sàkku ci yow mais tamit di ko ñaanal internet yi di ñaanal jàmm bu baax a baax di ko sàkku si ñoom di ñaan kenn rek yal na yàlla def jàmm si àddina bi yëpp barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Amine Babacar Babacar ñëw nag su mbokk internet bi ak sunu lam te nag sunu lam dafa am nag euh, Balla Gaye sekk ak moom waxtaan bu yaatu ñëw na si carrière Balla Gaye ñëw na si combat bi gën a marqué mi combat contre Yékini ñëw na aussi si tournoi bi mu yaakaar ne wala nga ko def ak VIP euh, pour nu xool si ñoom ku si mën ñëw na aussi si relation ak Ama Baldé ak aussi relation ak Sa bi nga xam ni moom mooy euh, mu dëkk si biir këram wax na daal di di rakkam wax na daal lu yaatu daal si avenir am si biir làmb ji Babacar. sunu làmb waxtaan fa ak Dembélé waxtaan wu yaatu Abdoulaye Dembélé ñu koy nuyu moom tamit. ak Assane Waalo Gaye ah kon noonu la demee ñoom tamit vraiment ñuy liggéey liggéey bu am solo ñoom waa sunu làmb Balla nag comme li ñuy wax rek euh, tey ñëw na ci ci kani daanu bu Yékini neex na ko effectivement ndax ki Yékini jamono ji ko Balla lay daan ñi ko bëggoon a daan bëri na waaye kan moo ko mënoon daan moo doon question bi moom nag moo osé woon dëkk ko ñëpp ne day xaru mu jël bëre ak moom ko. loolu defe naa mérite la te defe naa ku def loolu vraiment ah di nga yëg que ni man li ma def nii vraiment yow mi ko def yaa koy njëkk a sax balaa say soppi di ko sentir kon loolu dañ ko ci naan félicitation beneen bi ci des nag bu mu ci jógee nee na ay difficulté moo ko ci fekk maanaam ay ay wéradi wéradi nag moo ko yaram a ànd parce que yaram buy dund di moom il faut que lu koy metti lool du mën a ñàkk quant à nag euh, comme li mu wax rek bi ñu ko ci waxee tamit comme mbirum dopage bi jàpp na ne moom du woon dopage di kon rek parce que bi mu daanee Yékini bi mu paree Tapha Tine ci teg bi mu ci jógee gis nañ beneen Balla boo xam ne nii ci image boo ko xoolee daan est-ce que kii Balla Gaye la loolu nag boo bu ñu la dafa feebaroon tamit war na koo mën a nangu mais lu ci mën a xew mooy que ni feebaroon na ñàkkante na ba faju ba yàlla dimbali ko ba mu wér ba dellu siwaat ñëw na tamit ci mbirum comme tey euh, digganteem ak Ama Baldé li ñu ko wax li ñuy xamal ne que Ama fi mu nekk nii am na ay difficulté biir Pikine ndax àndam ak Balla Balla moom jàpp na ne loolu amul dafa jàpp ne ñëpp bëggoon Ama tey lañ ko gën a bëgg te waa Pikine Ama la ñu bëgg dafa fekk ne nag moom euh, mbirum mbokk leen boole mbirum deret mbirum waaso loolu nag lu ñu mën a xam mooy diggante Balla ak Ama moom bu ñu delloo ginnaaw ñëw ci Falaye Baldé ak ki nga xam ne moom mooy duubalees Falaye yal na ko yàlla yaram mais bépp mu nekk ci suuf loolu yaakaar naa tamit defe bu ñu amee relation loolu def gisuma ci man lu war a am jafe-jafe ba ñu war ci bañ kii wala ñuy bëgg kii ay seeni wéyjur la woon tey ñoom ñu ñëw sàmm ko kon ñun loolu dama yaakaar ne lu rafet la rek pour man man sama gis boobu laa ci amee yaa ngi dégg rakkam Sa Thiès tamit nee na bu du génn këram mais bëgg na mu gën a responsable gën a xëy na joxe boppam ci côté kilifteef loolu tamit defe naa am na droit wax ko ndax ñoom moo bokk moom ndey ak bàyyi yaa ngi dégg te mooy kilifaam kon am na droit ne kat rakkam nii rakkam naa rakkam naa. loolu nee mu xoolaat aussi entourage bi te mu am kilifa déglu kilifa mi. waaw loolu moo moo lay muccal ndey kumba àddina ku fi nekk rek am nga kilifa yaa xam nga nangu ko wala nga bañ koo nangu mais kilifa moom amut ku ko yàlla joxul ñaari way juril sukk jur sax bu ñu demoon ba nekkatuñ daaru dunya mais terewul am nañ fi ay rakk. wala ay nangam wala ay nangam ku ne am nga kilifa kon xëy na Balla daa bëgg mu gën a joxe boppam gën a responsable gën a itam xool ñi ko wër loolu li xëy na loolu parce que dafa jàpp ne xëy na bu loolu amulee carrière am mën naa am ay yàqu-yàqu ndax ne na ci diggante ak Boy Niang wax ak yéen wax ak moom benn moment boo xam ne sax nangu mënu ko na am loolu ci moom loolu nag euh, xëy na da euh, tamit ñun ci niñ koy gisee jàpp ñu ne ku xëy na ku réew la ñun mënuñoo wax lool parce que gisuñu ci moom loolu mais nag euh, ñoom ñaar ñoo dëkk ñoo bokk ndey ak baay li Balla mën a wax ci moom mu dagg keneen mënu ko wax ci moom pour man daal mais liñ ci mën a xam daal mooy seen diggante ah dañ leen di ñaanal mu gën a tax rek comme diggante ñu ñu ma mën a doon ñu seq àddina rawatina ñu bokk ndey ak Baye parce que tamit euh, loolu moo fi nekk daal pour man waaw. Babacar suñ jógee si Balla Gaye dem nag si bilan yi nga xam ne waa sunu lamb commencé nañ ko depuis euh, semaine bi ñu génn ñoo nañ si écurie Bosco Sow nee nañu def nañu 29 euh, combats 17 victoires contre 12 défaites progrès à pas de caméléon pas de caméléon soo ko déggee maanaam seen demim daal nank nànk dañuy temp temp waaw euh, balaa may ñëw foofu sa dinaa ñëwaat ci loo xam ne nii Ball da ko wax muy tournoi ñoom ñuy tudd ay VIP waaw loolu loolu moom moom nee na moom bëgg na mu am waaw ñu xool seen biir ku man ah loolu nag promoteur yaa ngi dégg ku ko man demal nga jéem a essayé VIP mën nga si génnee Ama non Ama mën mu ci génn Ball ak Ama duñu bëri ah waaw Ball la dëggee duñu bëri waaw loolu de mooy coow li ah, kon xaw ma ñu ñuy boole kon <laughs> waaw loolu mooy coow li kon xanaa kay dañ naan benn tournoi boo xam ne boog dañuy seet ñi war a bëri ñu bool leen ca. ñu segg buñ ne Balla ne Modou Lô ne Eumeu Sène ne Bombardier ne Gris Bordeaux. kon tudd kon VIP ah waaw ndax di nga génne lag de Guiers de ndax bu fa Balla nee lag du fa ne. Ama du fa ne kon foofu loolu day xaw a doy waar ah, bilan bi. Eumeu Sène waaw Eumeu Sène du bëreeg Ama loolu tamit c'est autre chose doy waar la euh, bilan boobu ñu def ci ci bës ko sow ne ñu ngi dox ndànk-ndànk waaw dégg naa de suñ fàllu doon wax ne tepp tepp gën yurit yàlla na yàlla yokk ay leeram te taaf ñu ci barkeem ah, comme ñu ngi jéem a def ndànk-ndànk tompi temp ñoom waa bës ko sow parce que écrit bu yàggul la juddu la comme tey ñu ngi jéem def dara sax parce que li ñu am noonu ci bilan pour man lu positif ah. vraiment 12 victoires 12 défaites. non 17 victoires 12 défaites 12 défaites muy 29 combats. loolu defe naa lu raisonnable la ci écrit bu nga fa tamit a baax donte kañu gënu na moo doon tëdd mooy tëdd fil parce que mu ngi teglante ay défaites vraiment mais xale la boo xam ne tamit li ñu koy wax muy mu gën a liggéey rek ñëwaat parce que làmb moo mel noonu des nga wàcc mais nag boo euh, gënee di liggéey jéem a xool lay ñàkk loo nga jéem ci liggéey amul yoraw mën na baaxaat mais vraiment daal mën nañ ne tamit seen bilan boobu man am na lu mu gën daal waaw baax na daal pour man Euh, ñëw nañ tamit suñ jógee si bëre dóor bi ñu ñëw bi tey suñu làmb na dañuy def benn jàngat si euh, ñi nga xam ñoom na woy làmb ji ngi mel ni ku si mel ni Mayang Loum ak Ndeye Fatou ñoom daal Mayang Loum pour le moment moo devancé si benn gala ki nga xam ne moom mooy magam muy Ndeye Fatou ndax Mayang Loum animé na 15 gala contre 14 pour Ndeye Fatou Babacar. ñoom ñaar day ñoom ñaar ñëpp am mérite waaw parce que. ñoo bokkoon groupe sax. wala voilà ñoo bokkoon groupe defe naa ne dem ci yàlla Xadi Diouf ci ginnaawam lañ nekkoon ñoom ñaar ñëpp euh, ñu jaalewaat Khady Diouf doomam lay tindoon di ñaan yàlla yërëm ko xare ko aljana moom Khady Diouf moomu ah, lamb nag moo tëdd noonu ñoom ay jigéen lañu vraiment di way way yu neex a neex muy mbayang ndax mbayang xam nga fu mu nekk di way moom yow mi yore micro di wax sa dootoo toog nday faatu aadama jëli ne ko toppal ma ñëw kon ñoom ñëpp am mérite muy waykat yëpp ku mel ne Agnès bu Mayendab tamit gis nañ ko vraiment fekk nañ ko Njaay Njaay Fatick moom tamit bokk na ci ñoo xam ne ñu ngi leen di solliciter bu baax ci woy yi kon daal dama naan ñoom jigéen ñi nekk ci làmb di woy yëpp daal ñu ngi leen naan jërëjëf parce nekk ba ñu bëgg kon defe naa loolu mérite la waaw ji mbir mu mën a doon nag il faut mu am ku jiitu am ku topp loolu mooy àddina ndax yàlla moo tëral loon ay mbiram waaw ñu dem nag si bébé jën ñu waaw parce que boo xoolee ni ñu dikkee si moom su ma jumun cinq ans nga bëree ci quatre combats. bëre dóor bëre dóor. ci xale boo xam ne jàkkaaroon nañu heure war na fekk mu déclenché bu yàgg kon xëy na ni muy doxee actuellement euh, baaxul. journal bi dañ simple moo ko freiné moo freiné carrière waaw lutte mën na nekk ah. waa xëy na mais tamit ci benn côté euh, dama naan est ce que tamit ci côté management bi loolu tamit est ce que du ci pose problème parce que mbër a ngi bëre simple ba pare tey bëre dóor tout le temps. yaa ngi dégg loolu tamit damay xëy na dama naan encadrement bi ñoom war nañ ci eh, am responsabilité ñu mel ni ñi koy encadré ñoom ay waa waa écrit Soumbédioune ñoom booy kay rek ay ñoom maaw kut su maaw parce que tamit xale la boo xam ne bëgg ko na ci mbër yi nga xam ne ëllëg war nañu def dara ci lit ci lit affaire frappe parce que xale la boo xam ne bu mën a bëri la moom bébé Diène et puis am na fit te itam vraiment techniquement gisaat ni beneen bébé bismi lañ gisaat par rapport ak bi ñu doon jëkk a gis ñuy tamit nuyu Fallou Ndiaye mi ko tëgg parce que combat espoir bu neex a neex a neex la tëgg waaye daal xam naa ne ah euh, comme day làmb sa dama naan ku ci jël sa face morom rek yaa ngi ci guddi gu bët setagul ñoom ñaari gépp waaye xay na yëglikaay bi Ada Fass la tànn mais nag euh, ay xale lañ kenn ku ci ne war nga mën a am loo wane bu ñu yegee ci bisu combat ba di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal te tamit bépp doomu aadama rek mais làmb ju neex a neex la nag. ci kàddu yooyu leen tàggoo la jox dig daje <laughs> suba incha allah balaa boobu may nuyu sama yaay mère Sow depuis Mauritanie nuyu sama doom moo Mohamed Diouf di nuyu Dadi di nuyu Astandine Chéri Khadija Diallo de Brahma di nuyu aussi euh, sunu doom euh, muy Mame Diarra Penda euh, bébé Rokhaya ak Junior Babacar. ndey ku ma noonu la demee ah kon nuyu nañ ñëpp internet yi mais doo nuyu Sédho mi wax ak yow Sédho gi lay tooñ na ñu koy nuyu Sédho ah Cédric Diédhiou moom mooy la nu nouveau président de ASC Baobab di ko ñaanal yàlla mu am ci ndam parce que tamit euh, maanaam xam nga wóoru leen ma yomb wóorul mais ñoo la wóolu moom moo gën a yaa ñu jiite daal moo gën a wër kaay ma jiite leen kon loolu ñu ko jox yàlla na si am ndam mais tamit di nuyu koo xam ne tey Cheikh Fall depuis Brésil maa ngi koy nuyu di soppe Balla gay 2 moom tamit ak ki nga xam ne nii mooy Awa Diop depuis Touba di soppe Balla Gaye 2 Fatma Fall Italie mais actuellement mu ngi Sénégal moom tam maa ngi koy nuyu di nuyu suur ma leen toog Modou Mané mais di nuyu ñi nga xam ne ñoo internet mais tamit di profité di jaale Moussa Dioum jarbaatam boobu nga xam ne dafa wàññeeku ci benn accident ci fële Parcelles Unité 7 di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare mu di nuyu Aïda di ko wax mention spéciale maquillage bi am na solo di nuyu képp ku nekk Leewtoo daal mais tamit di am lu nga xam ne dañ koy wax parce que ñun ay doomu aadama lañ ay africain lañ ay nit lañu parce que dañu gis benn ay image yoo xam ne ci Afrique loolu dafa ñaaw loolu dafa ñaaw war a dab moroomu nitam di ko dóor ba di ko rey ndax dafa nekk sa réew te planète bi yëpp suuf si yàlla moo ko moom wàcce ñu fi ñu waroon a am ku ci ne yërëm sa morom yéene sa bopp bo li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom gis naa sax ci sa suba ay bind ñu naan sénégalais yi bokkuñu ci ay nangam mais même bu ci sénégalais yi bokk mais ñu ngay rey ay nigérien di rey ay ghanéen di rey ay guinéen kon defe naa bu ñu reyee benn nigérien sénégalais war na ko naqarlu kon yaakaar naa sud africain yi loolu ñuy def du lu gën yaa ngi dégg suuf si bu ñu fi nekkee bëgg am jàmm la sëñ seexam almaxtum waxam yàlla na yàlla yokk leen taf ñu si barkeem mooy que ni bu ñu sona rek ñoo sonal suñ bopp parce que bu ñu wàccee li nga xam ne moom la ñu yàlla wax rawatina nag yénente jàmm dañuy ne ci ay difficulté kon yàlla na yàlla jubbante xol yépp ba ku ci ne li ngay ne sa bopp ngay ne ko sa morom pour que jàmm mën a am te ñaanal ñëpp jàmm di ballu ñëpp àq di wax match bi nag match dimanche match dimanche bi moom buñ kii capitaine match bi moom jàpp leen yéen internautes yi ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp Euh, Leewtoo TV xam ngeen ko surtout lamb 100 pour cent la moog Lutte TV ñooy def lamb 100 pour cent ci site internet yi ñoom nag ñooy boole suñu équipe daje ak. membre yi nekk CNC ak yenn membre ci CNC match bu Val d'Or lay amee dimanche 15h nañu ñëw man nag tànn naa samay joueur ba pare fii ci Leewtoo. dafa équipe bi kan ak kan tànn naa tànn naa tànn bi Séddo la Modou Mané Yagmar ak Mansour ak ah. ñooñu laa tànn fii waa Leewtoo waa Leewtoo tamit tànn nañ xam naa ba pare. seen coach mooy kan Lamine ma di leen nuyuwaale. coach bi waaw coach bi moom mën nañoo jox yàgg maar rek mu coach équipe bi <laughs> su ko neexee mën na nekk coach football loolu dañ koy gis nekk coach ba pare football loolu mën na ne mais ma koy nuyu yàgg maar Siri Sala du mën a ñàkk. nuyu ñëpp doomu ndeyu Kempes ah Sira Missi la ca Paris bëgg nañ ko. jëf bu suba. <laughs>